ñi mën a dog ci koor mooy ñii ku feebar feebar boo xamante ne bii day yokk feebar ba bu demee nag bay yegg ci bu bu wooree mën na ko mën na ko mën na koo indil jafe-jafe ci bakkanam sax mën naa jël bakkanam kooku koor wàcc na ko waaye nag bu dee feebar boo xam ne moom méttiwul kooku na woor woor gaa gën ki nga xamante ni bi itam day nàmpal bu fekkee daa ragal ne bu dee nàmpal bu wooree du mën a am lum nàmpale doom ji kooku naa bum mu woor waaye nag bis buy fayit dana joxe bis bu set dana lele dana jox miskin bi lum mën a eh, añe wala lu mën a reere maanaam ci gàttal moom la ko doon wax fii daal boo bëggee joxe loolu bus bu set mën ngaa joxe cinq euros ba dix euros bés bu set bés bi mu dog bu ne fan yi yim wóor yu ne bés bu set na ca fay loola boole kook fay koor ga bu ngànt li jeexee ci mooy ki nga xam daa ëmb euh, ca ragal doom ji wala kiy nàmp ragal doom ji waaye bu fekkee ne ki nga xam ne daa ëmb rek moom dafa ragal ne wér-gu-yaramam docteur bi nee na ko bul wóor rek kooku moom na fay rek bu fekkee nag dem na ci ba àgg ci ne maanaam mook doom ji yëpp doom ji rek a tax waaye moom taxut ki nga xam ne doom jee tax jim ëmb wala gi muy nàmpal moo tax mënta woor kookee bu wooree bu bu bu ngàntale bu wéree maanaam bu doom ji mënee lekk ak naan na fay koor gëta na fay bus bi set na lele kon ki ragal sa doom du am moom nàmp kooku mooy fay waaye ki nga xamante ni bii daa ëmb rekk ci ragal ne moom ëmb bi bu ko boole koor docteur bi nekk bul woor kooku du fay waaw ki nga xam ni daa màggat màggat mu góor ba mëntuta attuntu woor kooku it bés bu set nañ koy nay nay fay dara nay joxe 5 oro ba 10 euros 10 euros gën a mat ndax 10 oro moom ala kulli xaal nit mën na cee lekk 5 oro nag mën naa manqué ndax masalan bu ma la doon wax tey boo demee ci foyer ba la fa palaatu ceeb di jar yomb na waaye boo demee ci garab ba daan la wax cinq euros waaye boo demee Paris bëgg palaatu ceeb man nañ la wax 10 euros kon nga joxe 10 oro moo gën. waaw ki nga xam bi itam waaw kooku moom kook ak ku feebar ku feebar koo xam ne feebar bi dafa chronique koo xam ne jabet boo xam te ne bii waa ji docteur bi dana ko bul woorati kooku dutu woor dutu fay moom màggat mi mënut a woorate yam ñooñu nañu joxe bés bu set 10 euros ci weeru kor bi yépp waa kay ki nga xamante ni bi liggéey bu diis kenn lay euh, lay lay liggéey mel ni maçon yeeg ñuy liggéey ci yu metti yi bu fekkente ni bi jamonoy tàngoor bu demee dem ba nga xamante ni bi bakkanam a nga cee bëgg di sonn na lool mën naa dog kooku day fay rek moom du ci fayante day fay bisi amee rek waaw ndax bakkan nag moo jiitu boo demee ba sonn ba nga xamante ni bi yow mi yaa liggéey bi mënatoo ko mënatutoo boole bu liggéey bi koor gi ah, te mënoo ñàkk liggéey kon bu baax borom xam-xam yi ne nañ mën nga bañ a woor waaye kooku moom day fay rek ñooñu mooy ñi nga xam ne mooy ki ëmb ak kiy nàmpal ak ki tukki tukki boo xamante ne bi dañ ci wàññi julli tukki boo xamante ne bi fa ngay tukki doo fa def lu mat quatre jours mais bu fekkee ne fa nga jëm danga fa def quatre jours nag sañoo dog sa koor ci kii tukki sax bu mënee koor moo gën ci moom moo gën waaye nag sañ naa dog bu fekkee ne dana fa am 4 jours boo déggee kaay naan la 15 jours kooku beneen ngiir la waaye bu dee ci ngirum Malik 4 jours bu fekkee ne dana ko def ca dëkk ba jërëtul mën naa baña bu fekkee ne dana fa def 4 jours amul droit ñàkk woor bu fekkee ne da ko fa def moyen nag ca distance fi mu dëkk ak foofa mën na 90 kilomètres à peu près kon mën naa baña woor waaye nag koor gi moo gën. ndax bu fekkee du ci benn coono ci tukki bi koor gi moo gën mu woor